Euh, li ñu mën a jàpp ci audience bi man sama xel déjà dafay dem ci soxna si Khady Ndiaye day Khady Ndiaye heure bi moom rek a taxaw kanamu chambre criminelle ñu koy atte te Ndeye Khady Ndiaye ci dossier bi dañ koy toppee euh, complice maanaam auteur principal bi neewu fi Ndeye Khady Ndiaye nag ku dëkk Sénégal war nga ko sargal surtout tey jii euh, du ma avocat de mais jigéen moo ñu jur ñun ñëpp te li mu dund depuis ci affaire bi depuis début bi ba tey nii gis nañu lu xew ci salle bi cette dame est ma terme maanaam dafa ëmb te incha allah du yàggatul dara léegi yàlla may ko mu moosi mais gis ngeen dafa taxaw avocats yi parce que ñu ñëpp ay avocats lañu ay droits de l'homme am na sax jigéen bi nga xam ne suñu naataangoo avocat boo xooloon ci dossier bi mais munu ko muñ ba dafa ñëw def incident ni président mayel kii mu toog ndax jigéen bu wérul la te fi mu toll gis nga ko sonn na mu am incident parce que président bi nanguwul loolu te ñaari soxna yi moonte aussi nekk président wax dëgg yàlla xam naa am nañ leen metti mais noonu la demee ba ci fin bi procureur ci boppam nee na waa soxna si mën nga toog ça dañ dañ ne tollument bi nga xam ne bu ñu lay àttee yow jigéen ngay waaj a wasin sax duñ la wax duñ la duñu tenir en considération mbir boobu te jigéen bu biir bu am problème ci justice muy problème mu xaalis wala problème mu bor wala problème mu divorce ak lu mënti doon juge bi dalay dàq sa kër ba nga wasin nga door a ñëw ñu door la àtte donc xamuñu luy urgence pour lii pour ndaw si li gën a bon tey jii elle comparaît devant une juridiction criminelle avocat mi xool nañ situation bi ñoom ñëpp ñu génn salle bi kenn défendre ko te yoon dafa ne juridiction criminelle mënoo ci taxaw amoo sañ-sañ taxaw ci te amuloo avocat même bu ñu lay jàpp maanaam premier jour bi ngay taxaw juge d'instruction muy inculpation ba amul avocat procédure bi day nul waxuma la jugement loolu moo tax chambre criminelle état bi ci boppam mooy def li ñuy wax assistance juridictionnelle di fay avocat pour di defendre accusé yi amul avocat donc loolu leer la tey jii de li ñuy dund nii mu ngi nii maintenant nag Sonko Ousmane Sonko képp ku koy defendre en tout cas ñun ñi yàlla def ñu sol rob ñu am mu am cofeel ci ñun ñaan ñu ñu assister ko ba fi ñu toll nii man de dama ne sant yàlla bu baax Ousmane Sonko euh, jàppale ko. c'est ak prochaine procédure c'est une succession de bénédiction maanaam yëpp ay xéwal la parce que liñ ko liñ ko teg ni mu diisee ni mu ñaawee mais mu toll fii euh, suñu borom bu lay jox ndam fu ko neex la koy jaaralee te ndam mënul weesu lii euh, Ousmane wax na fi waxu désobéissance civile wax na fi résistance mais su ko waxul du du nit sax parce que moom li ko dal. juróom-ñaari yoon yu mujj yi ko fi woo tribunal ñetti yoon yëpp xaw na ci ñàkk bakkanam yëpp xam nañ ni mu deme ba tey ji li muy dund Ziguinchor xam nañ ko ba fii Dakar neewu fi mais li xew dakaar démb buntu këram xam nañ ko ah tey ji li gën a garaaw ñu koy woo chambre criminelle déjà opposant bu dee nii ñu mën ko woowee chef de l'opposition ndax voix mu amoon ak doole bi ko yàlla may ci réew mi mais kooku nga ko yóbbu chambre criminelle déjà ñaaw na ci condition yu mel nii ci dossier bu ñàkk fayda bu mel ni bu salte bu mel ni bu nga xam amul benn maanaa amul solo te dara du ci dëgg ku ci nekk fii xam nga ni ñi monté complot bi seen bopp nee nañu mbir mi dara amu ci bu ñu tollee foofu ñu ne par dañuy àtte mais nañ ko rafetal bu ñuy àtte c'est pas parce que nit ki dafa woote résistance wala désobéissance que doo ko jox kayit parce que le problème gis nañ fi seen ay naatango yu ne jot na kayit du dëgg ku ci nekk na nga fàttaliku bés bésu penc sa sa bàmmeel ak bës wi yàlla ne fal yow ma laa tuzlamu nafsun sayan wala tus aha non gis ngeen sëñ bi dañuy fontu rek ne li ñu xaar ah te yàlla waxul kenn dara de man mi wax yéen xaw ma ndax naa naa yendu wala ndax naa fanaan waa ku ci nekk nanga nga seet lay xaar te loo fi def da koy fay bon tey ji normalement mënuñu woon affaire bi parce que Sonko kenn convoqué wu ko ni ko ma soxna kan waxee loolu moo am mais mooy wuyu see xam nga nit doo wuyu si parce que rajo nga dégg dañu lay atee walla ci euh, ci journal déedéet dañu lay jox kayit te kayit bi danga nga koy déchargé wane nañu preuve bi nii que mbir mu bon bu garaaw am na te commissaire bi tey jii toog euh, Ziguinchor ñu koy wax Massaly moo def li ñuy wax un faux du 11 mai parce que bu dul loon foo le mais mai commissaire bi nekk fii euh, Adramé bu dig du dem le 15 mai muy lundi bi parce que mardi 16 lañ doon convoqué pour audience bi lundi 15 à 8 heures mu présenté wu cité Kër Góor gi moom directeur u dig bi nekk fii mu ne gisu fa Ousmane Sonko eh, mu ngi dem Kër Massar seeti Khady Ndiaye mu jox Khady Ndiaye convocation Khady Ndiaye signé parce que bu ñu la convocation da ngay signé Khady Ndiaye dem ñëw fii directement ci greffe bi ñu ne ko suba mooy le 16 sa audience mu ñëw mais Sonko jotul kayit boobu la preuve le le 15 ne wu fi yoon mu ngi fële Ziguinchor commissaire Ziguinchor le 11 fexe na moom ba def kayitam boobu nag mooy faux bi parce que dafa ñëw décrire na sax këru Ousmane Sonko nee kër gu weex la mur bi def na presque deux mètres de hauteur am na sax ay barbelé ce qui est faux parce que ku dem foofu xam nga ne amul barbelé même bu jël oto sax du taxaw foofu donc fa la fekk Sonko jox naa ko convocation bi mais convocation bi nga ni Sonko inspecteur des impôts intellectuel bu day ni moom signé ko moom tam commissaire xamul ni euh, convocation dañ koy signé bon kon du ñu toog le 15 patron si de kër gi ni ko dañuy ñëw fii pour convoqué ko xam ngeen ni yenn yi rafetul sax moo tax ma ne dañu sant yàlla parce que Sonko li ñu ko def yëpp day xëpp seen kaw dañuy def ay yi nga xam ni. mais rafetul sax ñu koy waxtaanee parce que duñ la gëm. moom mu ñàkk fi teew ñàkk fi teew ngeen ñàkk teew si biir salle bi ban jeexital lay am si procès bi ak si Sonko. non amul benn jeexital parce que ay nit rek ñooy àttee gis ngeen dossier bii bu dee ñi koy àttee ay nit lañu bu dee ay doomu aadama lañu ay nit parce que je pense que sax boo demoon parc an sax génnee fa ay malade jox leen dossier bi ñu xool wala nga jël toutes les données def ko ci ordinateur ñu xool Sonko amuñu fu ñu jaar ba condamné ko. mënuñu ko déclarer coupable parce que dara amu ci xam nga dossier euh, peu importe Sonko nekk fi wala bañ fi nekk témoins yi maanaam seede yi yi ñu convoqué ñoo waroon ñëw ñoom ñëpp seede bu ci nekk rek mën nga régler dossier bi mieux que cinquante avocats parce que ñoom li ñu dund ak li ñu fekkee dañuy wax parce que témoins ñaar moo am ki ki fekkee fekkee ak ki gis ak ki dégg xam na sax témoin bu ñu mën wooyee de personnalité parce que mën na dégg euh, mbiru waa ne ah man de lii weddi naa ko parce que diw mënul def lii mais bref ba témoin yi gën a important ñëwuñu mais nan nga bëggee ni dangay ngay atte affaire bi Sonko ci boppam ku ko atte rek la bëgg ndax bu noonu loolu li mu ñëw fii ci tribunal benn opposant ñëwu ko fii ci tribunal bi dem na ba ñëpp mere nañ ko sax mboq mi parce que dafa ko neen ko borom kër la borom ay soxna la euh, euh, mbokk mi ba ngi dund donc moom li ko gën a ci dossier Adji Sarr bi mooy mën na taxaw. mais est seen pexe pour ngeen internationaliser combat bi. non loolu loolu waxatuñ ko parce que combat bi ñun rek newuñu fi am na Sonko am na ay ay militants partout à travers le monde am na ay avocats yu fi doon ñëw normalement bara dugg Sénégal ñu leen dugañ fi duggee. parce que aussi li ñu waroon bind xëy am na ay fuite ñu gis ko ñu ne kii bu ñëwee kon day yàq suñu affaire te ñun ku ci nekk ab bind nga lu mel noonu lu gën a garaaw tey ji ñu bëggoon mooy lii rek ñëw plaider def suñu liggéey mais kii kii du procès du dara ñi ko xam nag moo tax ñoom ñooy def tout pour que Sonko bañ a ñëw en réalité voilà parce que loolu bu ngeen ko comprendre c'est pas la peine xel nag loolu lay jëriñ da ngay xalaat parce que ñoom est-ce que euh, comparution Sonko arrangé na leen mais bu leen arrangé woon daañ ko daañ ko jox comparution euh, euh, citation comme ni ñu ko daan def mais bi baaxul c'est parce que ñoo ko def exprès. merci beaucoup voilà mu ngi ci prochaine étape mu ngi ci loxo subhanahu wa taala xaw ma ko li ma xam rek mooy euh, ni ñu koy atte ni contumace la tudd. atte bi baaxul parce que Ndeye di Ndiaye amul avocat donc lii du atte kenn mosu ko gis kenn mosu ko gis ci àdduna. gis nañ fi temps yi mais amul avocat avocat bu génnee amatul avocat te seen avocat yi maa ngi leen di. Euh, sargal di leen sant di leen gërëm parce que vrai avocat la gis nañu li ñu daj ñun ñu génn ñoom tam ñu ne du ngeen ñu gën a ñu ñun tam dañuy génn parce que yéen bu dee auteur acteur auteur principal yéen la ngeen def nii ngeen gedd salle bi ñun dofuñu dañ leen di top te loolu jar na sant parce que ñoom depuis ñun ñu ngi liggéey non mënuñ ci dara non mënuñ ci dara dans la mesure on n'est pas présent dans la salle mënuñu plaider ne pas plaider c'est une façon de plaider ñu ngi plaider beneen façon du ñu ay robot ay nit lañ de ay doomu aadama lañu dossier bii c'est pas soo ko neewu fi que dañ koy déclarer coupable de parce que déglu ndaw si ndaw si mënul wax ñaari baat yu taxaw waaw déedéet bëgguma sax RAS mooy raa bi Adji Sarr mooy rien à signaler waaw moom vraiment vraiment honnêtement amul benn problème moom tiituñu ci loolu ñoom ñoo tiit ñi bañoon ko jàkkaarlook moom waaw c'est ça il faut nekkoon maître Khoureychi Ba euh, euh, réaction